salaamaaleykum tout d'abord maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi may seetaan. coupe du monde pour man li muy représenté ci man bari na parce que boo ne coupe du monde rek daanaka dajale nga état yëpp dajale nga dëkk yu bari ñu war a dem ci benn jongante pour xëccoo benn coupe donc day représenté lu bari day dajale donc comme ni ñu wax ne sport moom day dajale donc day boole. day dajale xam nga retrouvaille la ñëpp war a dem jongante benn coupe boo xam ne monde bi yëpp koy xëccoo donc participer ci rek je vois que ni loolu rek c'est quelque chose quoi. waaw coupe du monde yi ma jot a seetaan yëpp équipe bi ma ci gën a marqué équipe bu 2002 bi la. bu ñoom El Hadj loolu moom du sax sii di mais bëri na peut-être li mu tombé suñu génération la ñuy nekk xale di màgg moo tax équipe boobu nekkoon équipe boo xam ne daf ñu marqué woon ñëpp ndaxte bu ma juumul dañoo ñëw kenn foogewu leen ko woon suñu ouverture bi Sénégal France Euh, ñu ñëw ndem si yàlla si Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla xaaree def différence jour boobu donc mu nekk jour bo xam mak ndaw góor jigen ñëpp ñëpp kenn dotul fatte bis boobu donc équipe boobu moma gëna marqué ci coupe du monde yu ma mës sétane seetaan demaguñ ci coupe du monde mais yaay gis équipe yëpp. kenn ku nekk bolé né ñan ñoy équipe favori ñu ci dugal Sénégal lool rek ça fait plaisir ma ngi suivre lool ci ci réseaux sociaux yi donc euh, Euh, ñi nga xam ne dañoo seen xam-xam dafa màcc ci mbirum sport yëpp koo ci laaj cinq équipes yi nga xam ne ñii leer na ay équipe favori lañ Sénégal da ci bokk nee nañ mooy meilleure équipe bu Afrique te loolu la yàlla def donc ma leen di féliciter ci Coupe d'Afrique bi ñu jël donc loolu rek ça fait plaisir

bala match di commencé mom dina ñaan xam nga julli ñaan ñaan yalla ñaan ci suma sang bi Serigne saliw yalla na yalla defal ñi ndam parce que suñu ay dom lañu suñu ay frère lañu domi réew mi lañu té pression bi nekk ci seen kaw dafa metti xam nga ngay footballi aduna bi yépp dila xol ñi naan yalla na gañe ñi naan yalla bu mu gañe donc lolu rek dafa metti mais man moom balaa match di commencé damay melni ku tok ci xol tunen duma tok duma taxaw damay ñaan rek Sadio Mané moy suma moy suma joueur préféré te it ku ne xam na ni euh fierté nit ku ñuul la ballon d'or bi gis nañ mu jël deuxième position loolu buma ma jum c'est une première fois fii ci joueur sénégalais donc Sadio Mané on te supporte te ñing kay ñaanal yalla at bi di ñew yalla na jël ballon d'or bi ah bien sûr man man man j'étais un bon jour. te ba léegi léegi damay bërki démb rek ñu ngi nekkoon Sénégal Japon di football ba tey damay football ndax sport la boo xam ne dama ko bëgg bu baax a baax a baax man diis laay def maay Ah maa la wax lii <laughs> Sadio Mané monoma. ah waaw ah, danga ma danga ma ëpp chance rek dem équipe nationale mais monoma. Ah. <laughs> jour final coupe d'Afrique bi dama nekkoon ci pression boo xam ni sama kër laa tëju man kase ak sama rakk bu jigéen di ko seetaan ndaxte man bu may seetaan ak mbooloo sax damay déconné parce que samay émotion ak yooyu du ma ko mën a contrôler donc euh, sama kër laa nekk man kase ak sama rakk bu jigéen mu jigi moom it mu bamba fa ndax tiit dem tëju néegam ma toog man kase sama salon di ko seetaan moo tax bi mu tegee penalty bi dugal ko xaw ma sax fu ma aw parce que jour boobu moom àdduna bépp a kontaan émotion boobu voilà xaw ma sax nan laa jaar xam nga daw dëkkandoo yi daw kottante ay dëkkandoo yoo xam da ngeen di sax rusante koo dajante ci mbedd mi kottante ak moom sa dëkkandoo ñi génn compte la kott la nga xam ne lii football rek ko ko mën sport rek ko ko mën <laughs>